asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah waa bambay man la Ibrahima Souleymane Ndiaye dëkk fii ci Bambey waxal jàmm nekk candidat ko coalition Aar Sénégal ci élection législative yi nga xam ne man maay tête de bi ma ñëwoon nag di leen baalu àq déjà di leen baal àq di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal waa département Bambey yépp di leen wax ni nag ñun dañoo nekk candidat ci coalition Aar Sénégal ñu jiital ñu tête de ñu nekk nag ñoo xam ne ay ndaw lañ dëkk ci dëkk bi wax dëgg yàlla am fi ay ambition yu mag a mag a mag bëgg participer ci développement dëkk bi ñu ñëw nag teewal suñu coalition bi nga xam ni président Thierno Alassane Sall mooy tête de au niveau national ñu leen baalu àq di leen ñaanal jàmm di leen wax ni samp nañ suñu ndënd wax dëgg yàlla war a bokk ci jongante yi war cee bokk nag ci ni ñu leen koy présenté ci suñu programme ci suñuy argument ak suñuy idée ci 14 points yoo xam ne dañ leen koy euh, waxtaane loo xam ne day jëm ci législature quatorzième législature bii nga xam ne mooy assemblée bii bu bees bi ñu jëm euh, ci quatorze points yooyu noonu dinañ ci wax ci ndongo daara yi dinañ ci wax ci fonctionnement assemblée nationale dinañ ci wax ci redevabilité assemblée nationale ci nañ ko war a càmbare dinañ ci wax tamit ci pàcc yu bëri ba ci ñi nga xam ne euh, c'est des personnes à mobilité réduite mooy woy yi donc pàcc yi nga xam ne dafa jëm ci askan wi bàyyiwuñ ci lenn lépp loo xam ne askan wi danañ ko soxla doomu aadama dina ko soxla pour mën a ñoŋal dundam ñun tënk nañ ko ci benn document xaatim ko tuddee ko contrat de législature boo xam ne 14 points la am mu méngoo 14e législature mooy penc mii nga xam ne mooy pencum ndaw réew mi nga xam ne ci lañ jëm donc ñu leen ci woo di ci tàllal loxo ndaw ñi di ci tàllal ndoxo mag ñi di ci tàllal loxo kilifa diine yi di ci tàllal loxo képp koo xam ne jigéen ñi xale yi ñëpp képp koo xam ne doomu Bambey nga doomu département Bambey nga ñu ngi lay taalal loxo di la wax que ni samp nañ suñu ndënd te it fas yéene nañoo bokk ci langue politique gi nga xam ne euh, spécifiquement ci wàllu euh, élection législative yi muy pencum ndaw réew mi. waa léegi mbokki Bambey képp koo xam ne bëgg nañoo voteel bëgg nañoo jàppale ñun suñu spécimen moo nekk nii euh, te spécimen bi boo xoolee couleur bleue la am na tamit fond bu weex. li ci gën a particulier nag li ci gën a am solo ngeen mën koo ràññatle mooy dafa am guy gu weex gu ci ne mooy garab gu weex gi guy gu weex gi na ko xàmmee bu baax a baax a baax bu ngeen xoolee tamit ci pegg gi ci kaw di ngeen ci gis nataalu Thierno Alassane Sall mi nga xam ne moom moo nekk tëdd liste bi donc na ngeen ko xool bu baax te xàmmee ko bind nañ ci it ñi nga xam ne mën nañoo liir aar Sénégal ñu mënta liir ñu wan leen ko wan leen guy gu weex gi ndax guy kat mooy force mooy mooy jàmm moom mooy moom mooy mooy li nga xam ne garab la goo xam ne dafay symboliser le Sénégal donc da ngeen da ngeen ko xàmmee bu baax te bañ koo jaawale jërë ngeen jëf ñuy ñuy lancer tamit un message de paix ndax élection yi tamit mën ñu cee wax te wootewuñ ci jàmm woote wuñ ci salaam ndax noonu lañ ko mën a bëgg a doxale